ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak su ay programme Lutte TV ndogu mbër nag la ñu wax ah tey nag ñu seet si koo xamante ni tey champion la ndaanaan la mu ngi ci làmb ji nag ah yi yi namoon ko lool lool lool nag gëjoon ko gis waaye nag tey Lutte TV seet si ko rek ah fees leen rek moom waxtaan bu yaatoo yaato yaatoo yaatoo waaye avant dara koy nuyu rek ah ko ziar ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy si Lutte TV Alaaji Mbay du ma ne nag Alaaji Mbay bu Sénégal mais l'international laay wax maa ngi lay waaw Bokar senegal Sénégal salaamaaleykum àdduna yëpp di la nuyu di la ñaanal kooru jàmm di ñaanal senegal yàlla fi jàmm yàgg di sant sunuy ñaari waajur di ñaanal sunu papa di ñaanal sunu yaay fi mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm ñam fa fekk ña ko fekk di ñaanal sunu sëriñ sëriñ al Aziz Abo di ko ñaanal bu wér yàlla na ko yàlla yàggal sunu kanam di ñaanal àdduna yëpp daal. Alaaji Mbaye koor naka koor gi. waaw koor gaa ngi nii rek sama waa waaw métti yaa ngi koy koor gi moom ñu koy seere. waaw ñu koy seere. Alaaji kon bokkul ci Baye Fall yi dul woor quoi. waaw non Alaaji moom day woor. waaw man moom maa ngi ci koor gi moom. waaw maa ngi ci. am tey est-ce que amuñu fukki fan ak benn wala douze. yow daal yow miy woor daal yow war nga mën a xam ñaata fan nga woor. Ah, maa ngi woor waaye du ma ko compter de c'est que dama koy bañ a muy nekk sama xel nag. waa muy yàgg. waaw man jàpp naa ne daal ay douze yooyu la ñu am douze treize yooyu waaw. mais euh, en tant que sportif tey parce que tey combat nga am di waajal mais en tant que sportif corps bi amul lu muy handicapé si sa entraînement. koor gi non non gi dañuy def deux séances rek balaa ñuy ndogu cinq dañuy dem salle. buñ ndogoo ba pare nii après ñu wàcc ci géej gi waaw entraîné yëngal yaram bi waaw maintien rek quoi. nga am na combat capital combat bu rëy boo xamante ni tey koo wax mu ne ko Aladji mbay lii mooy combat capital am combat sanitacoom sa diggante ak ni ma ko waxee barke de mu revue de presse sax donte yow yaa daanoon yaay favori waaye nag combat bi dafa am yu bëri yu si laxasu. waaw combat la comme combat yëpp xam nga combat bi li ci laxasu bari na parce que waa ji li wax bari na nee na moo mën xam nga moo ëpp doole. moo ëpp xaalis moo ëpp jàppale. bi ma koy daan amagul woon jàppale. bi ma daan amagul xaalis. xam nga mais lépp lépp rek dañ koy teg si loxo yàlla man moom na ànd ak xaalis ma ànd ak yàlla. Mm-hmm. est-ce que loolu ci combat par rapport làmb léegi làmb ku ne xam ne ne social la làmb léegi dafa laaj jàppale dafa laaj moyen est-ce que yàlla bi rek di rek rek dina doy ci combat bi. waaw yàlla yàlla bay sa tool bi ma koy daan sax boobu lépp ma ko jëloon teg ko ci loxoy sunu borom mais jom laa yóbbu ak fulla ak fayda ak ngor yàlla may ma ndam ci kawam boobu waaw loolu dañuy laabali war rek maa loolu dina yomb nag waaw àdduna moom dara yombul àdduna moom dara yombul loolu waaw mais lépp tamit xam nga teg ko ci fi nga ko war a teg rek maak buuse moom duñu ay noon ay adversaire lañ pour benn quelques minutes xam nga ñu war a ñëw jàmbaarloo def lu neex comme li ñu gaa yi di xaaree yàlla mooy ma ndam si kaw incha allah. ñu ngi xaar ngeen ngeen bëri loolu parce que El Hadj Mbaye ku ko gis xam ne ku ko xam-xam ne mën na bëre mais contre Boucher yaakaar ne dafa am lu war a wonewaat. waaw mooy li ma lay wax la am moom toujours am na fu muy commencé mais kenn xamul fan lay jeexee. waaw ci lowoto lay commencé ak ci arbitre arbitre moo naan prip mu commencé mais ci li muy jeexee ci yéen ñaar la. bu ne prip nooy def. arbitre bu dee prip moom mooy loolu du ma ko may dara. doo arrière. Boucher non non du ma arrière parce que Boucher moom euh, nekkul adversaire bu doy waar boobu noonu man ma war a arrière wala ma war ko. nga jàpp ne danger wul. non non mënul danger ci man Boucher maa ko daanoon. mais jamono ji nii jamono ji Boucher am na kattan de. diis na boog xaw ma nag. waaw diis na. diis na comme li mu wax diis na am na jàppale am na lépp. xam ma mu ngi ciy wax sax ay yeneen ak yeneen di wax promoteur beeg ñi tëgg làmb jeeg yëpp moom lañ faral yooyu yëpp mu ngi koy wax waaw mais man lépp maa ngi ko jël te ko ci loxo yàlla bala 15 incha allah. moo gët moom yéen ñaar moom am na fu ngeen jaar moom la. non moom da koy waxee comme pour déstabiliser ma Bousse noonu la koy waxee te xamul man mantaal fer laa yor xam nga quoi ku doon fanaan ci mbedd bu jekki jékki am benn puxus boo xam ne mën na cee dugg xelam day gën a dal comprendre nga man boogar fi may gis ni amul lu ma yéem ci àdduna dara yéem ma waa am na fu bëri foo xamante ne dama fa jaar man ak samay moroom comprendre nga àdduna nit taalibe rek la ma mën a jaay jaaxal ma mais du leneen boo ma jaayee luxe boo ma boo fekkee ci mbaar bi ma toog sa luxe sama mbaar moom ma koy gënal waaw kon àdduna amul solo quoi. àdduna amul solo waaye Alaaji mbay lan la lu lay inspiré Alaaji mbay lu mu wax sax ñi ñi ree lu mu wax maanaam challenge lay nekk ñi ñi di ko TikTok lan la xanaa dafa am lu lay dee. wala alaajee neex rek alaaj dafa bokk ci ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari fànn mën naa ne alaaji yaay ji géer la waaye baay bi ak maam ji maam ji jur baay ji géwél la muy maam maane seen euh, moo ma yar terme yu bari moo ma ko doon wax xam nga ma koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd wér yaram di ñaanal sama maam Maguette Fall bi jur sama yaay yàlla may ko fan wu gudd wér yaram xam nga yooyu moo may inspiré ak koñu géwél bi ma juddoo koñ boo xam ne fa nga dëkk juddoo fa waaw kër Fallaye Baldé nekk nii kër Ndeye Diop kase nekk nii yow boo waxul lu ne xaw ma ku koy wax moo ma jaaxal. ba tax na yi moom ñi lay bëgg dafa bëri mais derrière loolu noonu tey ngay bëgg nit ñi di di di di di di neexal xolu nit ñi tey euh, lan mu manqué Aladji Mbaye. lu ma manqué man. loo xamante ni des fois nga toog wéet mais da lay yow yow au da nga xam ne man mi non am na lu ma manqué quoi. waaw man. derrière le sourire de El Hadj Mbaye parce que El Hadj Mbaye foo ko nit gis day reetaan. waaw man lu may manqué du man rek nday manqué képp ku mu dal waaw dinaa am moment yoo xamante ni moj tolloo damay sentir ni dama dama dama dama wéet parce que dama dama teel a ñàkk yaay sama yaay dafa teel a gaañu xam nga dina te bu sa yaay teelee gaañu da ngay da ngay benn benn côté boo xamante ni da nga fay vidd da nga fay vidd. loolu ma koy masawu képp koo xamante ni ku mu teel a dal la xam nga di la ko masawu yaay daal kenn mënu ko remplacer waa loolu lu may lu may lu may lu may lu may manqué la. yan moment nga koy sentir absence am yan moment. waaw ci ay moment rek ci ay moment ci àdduna parce que àdduna loo gis ay moment la maag yow moment bi ñu àndee sànq di dox di ñëw yéeg ci sa moto ànd di ñëw moment yooyu amul lenn luñ ci sentir lu metti parce que man yow ñu ngi doon waxtaan di daw di ñëw. moment bi ñu toogee fii di ndogu ñu ngi doon lekk alhamdulilah mais di nga toll ci ay situation ci àdduna yoo xamante ne ni ay programme yoo xamante ne ni nekkul ay moyen moo koy lijjanti loolu ndey rek a ci mën dara waaw may wu képp koo xamante ni teel nga ñàkk yaay waaw di la wax ni nga gën a brave gën a góorlu euh, yàlla baax na tey gis nañ ne yaa ngi soxna si ak tuut tànk bi mais des fois tuut tànk ngay gis mu sonal yaay ji yaay ji di togg amaana bu fi maam bi nekkoon tey dina ko nax ak yeneen ak yeneen des fois coow lu sew mënta ñàkk mais yooyu yëpp dañuy gis ne maanaam tey waajur bu si nekkee rek dina am lu muy apposé si li nga xamante ni moo di famille bi waaw waaw waaw yu mel noonu quoi yu mel noonu parce que parce que àdduna àdduna àdduna moo demee noonu àdduna moo demee noonu di nga am soxna su baax am ay xarit yu baax xam nga mais yaay fi mu toll ci doom waa kenn mënu ko remplacer kenn mënu ko remplacer may ñaanal sama yaay yàlla ko yàlla xaare ajana yërëm ko waaw maa ngi koy big daal di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge ñam fa fekk ña ko fa fekk yàlla leen yàlla boole jéggal xaare leen ajana firdawsi ngeen nga nga jub na ko combat bu ñu gis ne 100 pour cent Pikine moom dafa mel ni ngi waajal parce que mën nañu Pikine en front te mën nañu mburu Pikine li si ëpp am nañu combat naka ngeen di waajalee waaw ñu ngi waaj rek comme combat yëpp yi fi jaar nañ ko doon waajee mbëru Pikine moom ku leen xam ni xam ni duñu yàq làmb te pare nañ pour yóbbu làmb ca kanam ñu ngi préparé ci làmb yëpp di ñaan Ama Baldé am na fa komba combat bu metti boo xamante ni nii boo ba léegi saa yuñ ne weer bi la koy bëre mu yàqu ak keneen ak keneen ku fa am combat maa ngi ñaanal ñi fa am combat yëpp yàlla may leen ndam incha allah. Ama Baldé nag ku la xam-xam nag Ama Baldé yéen ñaar mën nañ ne guddeeg bëccëg la wala mën nañ ne sax waxtu doxal seen diggante mu nekk sa gaañin kës waaye jamono ji mu toll nii tey ci làmbam ji waaj ko waajtaay yu métti métti métti en tant que xaritam yow lan nga koy santiral jamono boo nekkee soutien de famille ñu bëri topp sa ginnaaw nga jub làmb dem des 15 jours mu yàqu xam nga day metti trop day metti trop trop trop boo ko waxee boo ko waxul day metti trop daanaka moom dafa mel ni waaju na ba pare non pare woon na pare woon na carrément kay pare woon na carrément mais day doole sant yàlla rek te xam ni yàlla mi fi nekkoon démb moo fi nekk tey. parce que gis nañ ne dem na France def na fa lu tolloog 6 mois ñëpp na nekkaat ci àll bi di entraîner yéeg di lépp ngir waajal euh, en tant que xaritam tey lan nga koy conseillé si li ko dese ci si digganteem ak Modou Lo ci combat bi. waaw parce que mbër boo demee ba daan mbër yi fi mën yaakaar naa ni kenn du la conseillé ci làmb dañ lay ñaax rek waaw parce que moom ah, yàlla dogal na mbëri yi gën a tëla daan Malick Niang Tapha waaw mbër yooyu mbër yu doy waar lañ. waaw daan ñoom guy gi daan mbër yu bari daan champion yu bari kon kooku amuloo amatul loo koy conseillé ci làmb da koy ñaax rek fi mu nekkoon moo xam li mu def ba mu indi ko foofu bu mu ci bàyyi dara da koy continuer rek incha allah. adversaire am nag gis na ko barke dem ba génne na wax waaye bi mu waxee yow lan nga jàngatee si li mu wax am na nag wax yu bëri yoo xamante ne de yaakaar na boo ko seetaanee dégg nga ko. comme lan la wax. bon wax na barke ne bon gis nañ mu ne waa Pikine mu ne féete woo leen wax ak lu mën a xew jàpp na ne moo leen mën affaire yu demee noonu ñee ngi gis ne seen xaalis dina jeex yu demee noonu daal. waaw kooku xam nga làmb moo baaxoo ay wax parce que làmb yàggul da ngay gis ñaari mbër bëri laalante wuñ sax kenn daanu loolu gis nga ko fi ba tey comprendre ko kon làmb ku ci nekk da heure wax bu jotee da ngay wax mais yow boo yoree koo xamante ni heure wax bu jotee day wax heure jëf bu jotee day jëf parce que ah bu fekkoon day wax rek te jëful dara du egsi fii waaw wax ji muy wax noonu adversaire bi wax na dëgg mu ngi wax mais wax ji muy wax boole na ko ak jëf waaw ba egg fi merci waaw. bu amoon loo koy wax moom Modou Lo ci combat bi. lu ma koy wax ci combat bi mooy mu xam ne mu ngi bëre koo xamante ni bëgg na làmb ji mu ngi bëre koo xamante ni tamit doomu mbër la waaw moom Modou Lo champion la loolu kenn mënu ko bañ parce que boo demee ba nekk roi des arènes champion nga mais mu ngi bëre koo xamante ni champion la te bëgg na li muy def ñu koy ñaanal Ama Baldé daan ko jël bu set wicc bu amul benn werante incha allah. waaw bu làmb ji taxawee. combat bi nga làmb ji kay taxaw na xanaa kay bés maanaam date la ñuy wax dat fi mu toll. waaw date kay mooy taxaw làmb ji amagul date kay taxawagul normalement normalement waaw parce que xaalis yi moo dem ci ñaari mbëri rek mais amaguñ jour kay loolu làmb amagu fa. loolu yóbbante Boucher. Boucher li ma koy yóbbante mooy mu ngi wax rek mooy mu xam ne alaaji bi fi nekkoon démb moo fi nekk tey ba léegi. waaw alaaji. bu gën a mûr. waaw alaaji mën ko ko ëpp yaram waaye doo ko ëpp jom. parce que gars yi xàmmewuñu jom am-am ak jom waaw ak ku yàlla dimbali ak wërsëg ak jàmbaar yooyu sénégalais dañ koy cuwaatle lu bari parce que ki nga romb sànq mu yenu ay dàmbam mango ay dàmba màdd di ko yóbbu kooku ëppoo ko jom nga romb ko ci oto kooku da nga ko ëpp wërsëg mais ëppoo ko jom parce que bu dee liggéey moo la njëkk a xëy fuuf mais wërsëg nag kooku yàlla moo koy joxe mooy xool ku ko neex mu jox ko ko ku nekk la yàlla defal yàlla na la jik xam nga moom mu ngi bëree koo xamante ni man ma jom ma jom te du ma jëflanteeg sama benn moroomu góor ngay gis ci man ñaax jom wala ngay gis ci man leneen ak leneen waaw làmm nag ndam yàlla moo ko yor maa koy ñaan yàlla ma yàlla mayaat mayaat ndam ci kawam. mayaat ndam waaw. parole de sagesse nag tey moom gis papa bu wax ji maanaam wax ju tegg na la ñu gis wax ju ànd ak yeete wax ju tey moom beneen Aladji Mbaye laa gis. waaw boo parce que loolu la laaj. loolu la laaj parce que li ñuy wax chaque jour di ko yuuxu commentaire yi boo seetee yenn saa yi di nga dégg ku naan ñii dañoo bari wax kii dañoo ëppal ñii xamuñ seen bopp waaw koo fekk këram rek nit la. xamul ne El Hadj Mbaye champion la. waaw koo fekk këram rek nit la xam nga ñun ñooy ñun ñooy fekk nit mu xaw a gêné wu am nu mu toogee ñu koy jox li mu li ñu am ñun ci ak mbégte pour def ci moom mbégte comprendre nga. waaw mais bu fekkee tey boo ko dee rek ma fekk ma kul ma kul jàpp sama ñaambur. nga bàyyi ma ci noonu est-ce que kon su ma su ma dépassé limite yooyu ba commencé stressé wu wala may gaañ sama bopp est-ce que yow tegoo ma ko kon nit saa yoo fekkee nit mu stressé wu wala mu nekk ci benn xat-xatu àdduna rek li nga am ci sa talent parce que ñun am nañ talent bu ñu yàlla defal bu ñu waxee nit ñi ree xam nga bu ñu kontaanee nga kontaan bu ñu reetaanee nga reetaan loolu dinañ la ko jox pour baaxee la ko pour dimbalee la ko yow pour nga génn situation yooyu nga nekk. Boucher ambiance Boucher moom fu ko nit fekk mu ngi ambiance di yëngal waaye jours yi li ñuy xaar ci Aladji Mbaye te mu yëngal parce que bi da ngeen ko war a yëngal. non stade bi moom maa koy yëngal. Ah. waaw arène nationale foofu sama kër la foofu su ma fay dem du ma jël oto foo xam ne damay dox dugg fa. Ah. léegi dama faa jógee rek déggante yow ñu daje mën a yow Alioune comme ma arène nationale fu ma miin la fu ma xam la. Boucher moom am na relation de dina fa dugg de loo miine mu demine. waaw Boucher dina fa dugg Boucher comme que man ak moom yëpp dëkkuñu woon démba Diop daje Demba Diop ma daan ko Demba Diop sàkkantumaak moom mu ñëwee nag fekk si ma sama kër. fekk si la sa dëkkuwaay. waaw man ak moom dañoo paasoon dem Demba Diop ma bëri loo ko 24 minutes ba làmmiñ bi di waaj a laal suuf. dóor ko gauche droite muy daw naan daf jël sama tànk ma tëgg ko mbot mu jéggi ma cabaxal ko mu jéggi. ma daw trois pas mu naan daf may seize ma lonkal ko loolu kenn du ko mës gis ci làmb loolu boo ko mës nga ko gis. su ma ko gis. moo ma maa ngi lay bëggee bu amee loo bëggoon a tàggatoo rek laata waaw. waaw li may tàggatoo mooy xam nga di gërëmaat ñëpp rek. waaw di gërëm sama benn xarit boo xamante ne mu ngi Istanbul. waaw Bou Kounta Bou. Bou Fashion. Euh, dama ko fekk Turquie mu defal ma teraanga. yëkkati xaalis bu bari jox ma jox ma ay yére yu baree bari buu maa ngi koy gërëm bu baax sama xel mu ngi ci moom saa su ne di gërëm Dias Ballago mu nga turki di gërëm Grand Moussa mu nga turki di gërëm Hamza Baal Hamza Baal Grand Hamza kenn du moom di gërëm Moustapha Saliw bu Ama Balde borom Turquie di gërëm Modou Bayla bu baax a baax a baax day bàyyi activité am yëpp ñëw di ànd ak man entraînement di gërëm Elou sama seex sama xarit di gërëm Ismaïla Thiat nit ku baax koo xamante ne bi ñu dëkkee maam moom ba léegi dara ñaawul xam nga te loolu c'est pas donné à tout le monde dëkk dafa metti nga dëkk nit mu xam say jikko comprendre la ci di ci ànd ak yow te moi j'ai beaucoup de défauts si duma teg sama bopp foo xamante ni eggu ma fa wala mooy wax sama bopp dama parfait nit ku nekk am nay défauts mu ma ciy comprendre di gërëm sama soxna xam nga di gërëm képp koo xamante ni jàpp nga ci làmb ji bu baax a baax di gërëm Xaarim Diagne mu Yaasin Dukure boo ko kooku dinaa la booleeg moom. Xaarim xaarim jaañ mu seex na seex Sadbu kooku buggul sax ma bëre barki Cherafal kooku daf naa ma alaaj ñaat lañ la fay ma ne ko fay nañ ma 6 million mu ne ma bàyyi ma jox la 6 millions yi bul bëre bàyyi ma jox la set millions bul bëre bàyyi ma jox la 6 millions bul bëre. da ngay wax kay barki Serigne Bamba kooku toll naa ko foofu xaarim Diagne. mu Yaasin Dukure. yàlla na jàmmam waaw di gërëm gauche droite borom kër da baax mindi service. gauche droite PDG kër da baax mindi service. maa ngi koy gërëm mbokku ndeyu njoogu géy di gërëm yaayam bu baax a baax a baax di gërëm Tafa jóob yow da ngay laqatu mais bu si ëpp la jàppale. non man ñi ma doon gërëm ba ma juddoo ba léegi ñoon laay gërëm man rom ma benn nit rek ñu présenté moo ko ne ma kii dafa am xaalis ma ànd ak moom tey nekk télé bi di tararari naan kii kii kii man boo seetloo sama combat buuse premièrement sunu premier combat 2013 ah ñi may gërëm nii ñooñu laay gërëmaat du ma changé xarit de du chaque semaine ma changé de déedéet ñi ma doon àndal lay àndal ba léegi ñuy samay xarit elu foo ko gis gis ma foo gis Ama Baldé gis ma di ko gërëm bu baax di gërëm Malaw Seras comprendre nga di gërëm képp koo xamante ne ni yaa ngi pare la 15 incha allah may wax ñu jàppale ma yokk ma ñaan di gërëm sama nijaay bi nga xamante ni sama yaay moo nàmb jox ko muy Aline Diaw ñaaw mu nga ba États-Unis di ko gërëm di gërëm soxnaam maam maram di gërëm sama doomu nijaay yi nekk foofu ñoom Habib Ibrahima xam nga. ba waajaloo ñaar rek soxna si moom tey ndog bi moom macha allah. waaw non non loolu moom mooy loolu waaw xam mu leer. di gërëm sama soxna bu baax xam nga. alaaji waxalu alaaji waxalu leer de. xam nga sëy koo xamante ni yàlla dafa dogal ñetti nit lañ koo xam. loolu yombul comprendre nga. mais. Euh, waaw àdduna moom. muy muñ daal waaw boo muñul doo am maam jaara boo muñul doo am Cheikh Rafal. am compréhension. waaw loolu la àdduna loolu la. ñoo ngi koy ñaanal jàmm rek di ko ñaanal famille bi yëpp. di nuyu nag ah euh, Ali Ngom Sène depuis Turquie kooku tam sama waay la waaw depuis Turquie maa koy bëgg di ko. waaw kenn day moom te dinaa la booleeg Bokar barki Serigne Bam parce que yow nit ñi dañ laa bëgg. Bokar dama lay wax loolu tey de gars yi da leen di interview mais duñ la wax loolu. nit ñi dañ laa bëgg ma damay toog ay nit ñu naan ma Bokar. te mu nekk Lutte TV kooku dañ ko bëgg parce que dafa yaru dafa baax il est généreux il est joyable il parfaitement organisé dans la République di Sénégal le Bokar la ce gars il est di gërëm képp koo xamante ni nii yaa ngi Lutte TV waaw Bokar di gërëm kenn ci man barki Serigne Bamba borom Port kooku sunu xarit la PDG wu Elo muy Serif Ousseynou Laye kooku kenn du moom ci ñun Serif ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm borom baax transport baaba baaba maa ngi lay gërëm di la ñaanal bis yi yàlla na ci yàlla dolli jàmm yow loo bëgg yàlla la ko yàlla defal baaba sama xarit mbokkum nday buur géwél si yaa ngi dégg di gërëm prince Koumé bu baax prince Koumé prince Koumé kenn la ci man mbokkum ndayu waali ballaago sekk mbokkum ndayu papalaam seen di leen gërëm ñoom ñëpp di gërëm nag ki waral coow li boo doo ma laaj ko waral coow waral coow li bookor lii. mais man nag lii wuli laa doon gis muy nuur laa nuur laa ma xam ne nuur laa yaa ko moom. bookor lii xamul tax ma moom ko. bookor lii fondement bi Pikine la. ki ko moom doomu pikin la. yaa ngi dégg ki ko moom xam nga Pikine dafa am ñeenti tali doomu ma ko laaj. ñaata ban ak ban. tali bu bees tali bu mag ridis deux voies yi moo ci yokk pour waa waaye di gaaw a ñibbi moo tax ñu defal leen ko pour ñu tàllal. bañ a dugg biir Pikine ki moom lii yàlla daa dogal mu dëkk tali bu mag Pikine ci xolu pikin dëkk dominik yaa ngi dégg di gërëm jëmil sàmm bu baax a baax a baax di gërëm waa Jus Nouroullah yëpp jus bi dafa am ay secret yu ci nekk waaw day tempéré tension jus bi day tempéré tension tax boo koy naan sa tension du élevé boo koy naan euh, doo doo. lépp naturel la. lépp naturel. man moom dama koy naan moom. 100 pour cent naturel la zi bi zi bi c' est le seul zi au au Sénégal qui fait la santé à les républiques du monde à la zi Nouroula. waaw le zi c' est formidable le zi Ismaïla zi bi rek lay naan. maa la wax loolu. kenn du jàmm mayaa du yeewu te naanu zi Nouroula da koo bëgg. man du ma yeewu te naanu ndekki moom lay naan. <laughs> mais zi Nouroula man. kenn du kenn du Jamil Samba. Jamil Samb Nuuru. laa